tawxid moomu importance am dafa rëy mooy sabab ba nga xam ni yonent bi aleyhi salaatu wasalaam moom la jàngale ngir jaam jëfandikoo ko muy loo xam ni day dindi njàqare day dindi tiis yi day dindi naqar yi day dindi jafeñ-jafeñ yi day dindi insécurité day dindi réer day dindi ngëlëmte day dindi sànkute moom tawxid sunu borom ne alladina amanu walam yalbisu imanahum bi zulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun ñi nga xam ni dañoo gëm al iman te seen ngëm googu raxuñu ci bokkaale ñooñu ñoo am sécurité àdduna ak alaxir laa xawfun alayhim wala hum yaxsanun duñu tiit duñ jàq àdduna ak alaxir dañuy am dal dañuy am sécurité dañuy am dal ci seen biir xol dañuy am dal ci biti duñu inquiété wu de ak lu àdduna jaxasoo jaxasoo ma nga ko njàqare yooyu du leen domi déedéet ulaika lahumul am wa hum muhtadun te ñoom dañuy nekk ñoo xam ne ñu gindiku lañ ñu jub lañ duñu nekk ñu sànku du ñu nekk ñu réer gindiku nag bokkul ak muus gindiku bokkul ak muus de bàyyil xel loolu bu baax a baax a baax ñaata nit ñoo yeewu muus muusum xel ci mbiri àdduna te taxul ñu gindiku gis nga ko gis nga nit bu muusee te amul tawxiid du ko teree sànq faaw mu sànq ma ngoog faaw da koy xool ci ndaw soosee nga xamante ni nii mu nga tuubee ca sabab ya nga xam ni mooy sababi suleymaan yonant bu màgg bu tedd boobu suleymaan aleyhi salaatu wassalaam xoola diggante picc meeg ndaw si gis nga tawxid ak a yéeme kéemtaan gënu koo rëy gis nga picc mi bi mu ñëwee muy hudhudu suleyman tardee ñëw suleyman ne na indi daal lu biir bu dul loolu ma dal ci kaw ma mbugal ko walla mu indi daal lu leer nañ waaw ay excuse yu wér picc ma ba mu ñëwee est-ce que indiwul excuse allahu akbar excuse wér la indi ndax dafa indi loo xamante ni yataallaqu bi tawxid dafa indi loo xam ni mbirim tawxid ñëw exposé ko Souleymane ci exposition bu yéeme picc ma ne gis na aw nit yoo xam ne jant bi la ñuy jaamu jigéen na leen jiite mu ne ñoom lu leen teree jaamu ki nga xamante ni nii moom mooy génnee pepp ci suuf picc lu muy dundee pepp xoolal tawxiid bi nga xam ni moom la hudhud bi amee woon tawxiid bi nga xam ni moom la hudhud bi doon wax muy kennal suñu borom foofu mu ne leen lu leen teree jaamu kooku ñuy jaamu jant gis nga ndaw sa la muy muus muus parce que ndaw sa ku yeewu la lu lay wan ne ku yeewu la mooy ba leetar ba egsi mu woo ñi ko jege ne leen lu ngeen xam ci lii ci Suleymaan la jóge ñooñu ay góor lañu woon ñu ne ko ñun borom doole lañ sa ndigal rek la ñuy xaar bu ko defee ñu dal ci kaw mu ne leen def leen ndànk def leen ndànk de buur yii bu ñu duggee cim réew dañuy salfaañe réew ma waaw إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون بوكو yafalu bu سالفاني ريوم ñu féete woon suuf ñu jël leen ñu féete kaw ñu féete woon kaw féete suuf gis nga ndaw si kon amoon na xel walla amul xel amoon na xel mais kon lan moo doxoon digganteem ak njub ànd ak xelam mu ñaw mu muus moo doxoon digganteem ak li nga xamante ni nii moom mooy njub motax mané la xel ak njub ñaari bir yu bokkut gis nga fee suñu borom jox nako ko hudhud am njub ak gindiku bay questioné wu di yému ci ñi di jaamu jant bi te waroon na jaamu seen borom gis nga ko motax sunu borom ne wasaddaha ma kaanat ta'budu min dunillah innaha kanat min qawmin kafirin wa saddaha mu ne empeche na ko lan moo ko empêché maa kaana taabudu min dunillah bokkaale bi mu doon def moo dox digganteem ak jub moo tax gis nga nit lu mu muus muus lu mu am yeewute yeewute àdduna tey bokkaale du jub du gindiku loolu lu jar moo tax sunu pénc bi sunu société bi bu ñu bëggee mu jub xam nga démb ci darsa démb bi boo xoon naa la ne ñun jullit ñi ñun ñooy jooy naan yéefar yi ñooñu gën a dëggu yéefar yi ñooñu gën a nàngam ñooñu gën a nàngam ndax lan bokkaale bi fi fees del xeetu bokkaale yépp biñ fi dajale toog façon deret bu ne tour nañ ko ginne yi dañoo naan deret a naan deret ba doyal sëkk bay bajjant ndax lan ndax rendil lu dul borom bi tabaraka wa taala ni mu tasee fii ci sunu réew lépp di bokkaale gis nga ko kon buñ bëggee jikko yi defar àqu dëkkandoo buñ bëggee ñu mën koo respecté faaw ñu jiital tawxiid buñ tegee bopp bi euh, wagon yi doog a ñëw mais buñ bëggee jiital wagon yi teg bopp ba ca ginnaaw du dem tawxiid mooy bopp bi dañuy jiital tawxiid àqu suñu borom. ki respecté wul àqu ki ko bind ndax dina respecté àqu dëkkandoo dama leen di laaj ki respecté wul boromam bi ko bind te saa yu feebaree ay ñum tuuru mu tàllal loxom boromam yërëm ma fajal ma sama feebar yërëm ma wéral ma sunu borom wéral ko mu jogaat di bajjant ki respecté wul àq kookee te xam na ni dina dee ñu yow ko ba mu ne ngodd ne dañ koy jëbbal boroomam xam na ni mënul rëcc boroomam respecté wul àpp ko kooku dina respecté àpp dëkkandoo bu dëkkandoo waxee mu ne ko mbedd mi mbeddu nguur du loolu la ñuy dégg ci penc loolu la ñuy dégg ci société bi kon buñ bëggee jikko yi baax buñ bëggee comportement yi baax buñ bëggee ak njub njub ci ñun ci sunu bopp waaye njub ci ñu ñu jiite njub ci ñi ñu jiite xam nga tey yaa ngi dégg xeetu marche bu nekk lañ waroon a marchal mooy tawxiid islam santaane sax marche mais la jaroon marche bu marche waroon a am tawxiid la waroon nekk moo jaroon a marche ma ngoog kon suñu bëggee suñu société defaru ñi ñu jiiteeg ñun ñu nekk ci am nekk ci hidaaya faaw ñu taxawal àqu borom bi tabaraka wa taala muy tawxid mbokk yi dañuy teg fii suñu baaraam ñaan borom bi tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq defal leen defal ñu taysir defal leen ko asalaamu aleykum wa